dégg am ci xel am ci xalaat mun koo tasaare ëllëg ndax dinaa leen wax ne àdduna xel rek moo koy doxal amul benn xel boo xam ne du xel mu rafet muy doxal réew xel mu rafet rek mooy doxal réew xel mu rafet moomu moom lañ yore ci suñ réew mi mu defar suñ réew mi ba suñ réew mi àgg fi mu àgg kon xel mu rafet moomu moom la ñu war a yore ci koñ yi moom la ñu war a yore ci kër yi moom la ñu war a yore ci xarit yi moom la ñu war a àndee xel mu rafet mooy defar jikko ju rafet mooy defar waxtaan wuy jëriñ mooy defar waxtaan wu dul njëriñ amut njëriñ waxtaani jëw amut njëriñ dina la delloo ginnaaw dina la yóbbu safara te du am benn njëriñ bu ko sa njaboot déggee duñ mun a waxtaanee dara lu jëw rek ndax yaay buy jëw baay di jëw doom yi jëw rek lañ mun a nekkee yaay boo xam ne bii su toogee mu ngi ci jàmbur yi mu ngi ci nit ñi doom yi it loolu rek lañ mun a nekkee amut benn njëriñ bàyyi leen jàmbur yi bàyyi leen nit ñi bàyyi leen nit ñi ku ne yaa ngeeg sa jikko boo xam ne bii tubaarkalla macha allah soo tëddeeg sa njëgeenaay di nga xam ne am naa jikko boo xam ne bii du jikko bu rafet waaye ñu la ca bàyyi kon bàyyil jàmbur ci jikkoom soo toogee sax ba xam ne jikko sa dëkkandoor bii neexu la bu fekkee ne mun ngaa waaxu ba ca biir néegam waxtaan koog moom waaye moom it mu déglu la rek seet la nga xam ne moom la la ci mun a tontu ci tontu bu rafet mu tontu la ko te nit dafay nangu boo demee ba xam ne amuloo jikko bu rafet nga am sa dëkkandoor boo xam ne bëgg na la waaxu ba ci yow waxtaan koog yow war ngaa mun a xam ne ah tubaarkàlla lii kat dëgg-dëgg li ma wax dëgg la kon naa ko doxalee noonu kon li ma leen doon wax rek ñu seetaan tuuti nag ci koo xam ne kii ñu ngi waxtaan ak moom ci këram mu wax ñu lan la xam ci dëkkandoor mbokki gambia ba tey rek ñu ngi ci waxtaan wi nga xam ne mom lañ leen amal muy waxtaanu li ci biir ñu fas yéene waxtaan ci dëkkandoor ñu ñëwoon nag fii ci kër gu mag fii ci Banjul ñu di ko kër imaam na yàlla ay yaxam ca fa mu toog yàlla yokk leeram ci daraja yonent bi ñu ñëw fii tey ci njabootam ràññee fi ku ñuy wax aji xadi njaay ak kilifa gu ñuy wax laaj tiijaan ak mareetu ñoom ñëpp ñu toog fii fas yéene seq waxtaan ci dëkkandoor ma doon la laaj aji xadi dëkkandoor mooy lan bismillaahi ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi maa leen di gërëm ci ñëw bi ngeen fi ñëw di laajte dëkkandoo day moom jàmmaa ci gën ndax bés du ñàkk dëkkandoo lu foor la dëkkandoo dem na ba àllaaxira te dëkkandoo lañ laa njëkk a laaj dëkkandoo lu baax la dëkkandoo dinay isi mbokk ñu baree ngi bokkoo tey dëkk gu yàgg moo ko isi su ngeen dikkee da ngeen di amalante jàmm hmm. amalante sutura ñu bare ngi Banjul hmm. ñu ne mbokka mbokka fekk dëkk bu yàgg moo dëkk bu yàgg la dëkk bu yàgg mooy isi mbokka dëkk bu yàgg la mooy isi mbokka hmm. ndax ci kaw jàmm itam ngeen dikkee amalante leen jàmm amalante leen sutura nekk ci jàmm ngeen nekkee ci jàmm rek mbokka egsi mbokka agsi na waaw kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wane ne mbokk lu am doole la mm-hmm. ndax yow mal xiyaam sax ba laa laaj kenn mm-hmm. say dëkkandoor lañ laa njëkk laaj nga xam ne dëkkandoor lu foor la kon Tijaan kàddu gaa ngoog awuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim dëkkandoor mm-hmm. balaa ngaa xam njëriñam nga toog ba wéet boo wéetee lu mel ni dëkkandoor dem Europe dëkk fa am dëkkandoor ñooñu meluñ ci ni ñun di nga jàkkaarloo nit néeg ngeen di xëy di gisante nii doo leen nuyuwante sax dëkk la ñun dëkk dëkkandoor fii lañ ko faydaalee dëkk la fii lañ gisee njëriñ yi dëkk ñun ñu topp ci ci jëriñu fële ñoom duñ ciy jëriñoo ndik du mm-hmm. faalewuñ ko mm-hmm. dangaa dikk ay at comme ni ma ko waxee mm-hmm. lu yowante sax doo leen ko def soo bu boobaa doo leen xamante lu xew duñ la faale moo tax ngay gis ñi toog si néeg yi dee ca ay weer kenn du xam xet gi mooy wane ne dee nga waaye mooy wane njëriñi dëkkandoor fii juboo jàppante di jëflante lu xew ci dëkkandoor ci ci sa kër. Mm-hmm. dëkkandoor ya ñooy jiitu di nga am ñoo bokkal. Mm-hmm. waaye doo leen dëkkandoor. dëgg la. mbokk gi tasaaroo ñi nga bokkal tasaaroo. Mm-hmm. ku ci nekk dem sa kër. waa waaye ña nga dëkkal. mooy ña bokkal de. waaw ñu ne da ngeen bokk deret rek. bu dara amee ñooy njëkk xëy si jiitu si. waaw luy xew ñooy jiitu si. taxaw ci sa wàll. defal la la nga lañ la war a defal. moo tax nag am jàmm ak sa dëkkandoor am solo lool. pour boo ootee ñu uy si la waaw. te it ootee nga uyu ji leen pour ñu mun laa fay delloo la njukkal mm-hmm. waaw fay la bor mm-hmm. lépp lu nekk dañuy leblante bor la ñoo leblante taraanga dañ koy leblante waaw duy am fay nag waaye mm-hmm. ku la taraangal nga delloo ko taraanga amul nattu nag taraanga gu tuuti baag bu mag ba yëpp taraanga la rek moom la tudda soo moo tax nag ñu war koo leblante di ko di ko fayante ci dëkkandoor nga ko mun a amee ñoom ñooy sa mbokka ñooy sa mbokka ka nga bokkal juddu mm-hmm. mun naa génn dem tëxu ji wala waaye ña nga dëkkal mm-hmm. ñooy ña ngay jëflanteel bés bu jot suma sa ngoon mm-hmm. lu xew ñooy njëkk a teg moo tax ñu war ko faydal pour lal ko aji leen kàddu gaa ngi noonu jërëjëf ndey dëkkandoo de lu la parce que ñi nga dëkkal sa dëkkandoo rek ñooy sa mbokka bu la dara jotee. balaa uh-huh. say mbokk ay ñëw. Uh-huh. dëkkandoor yi ñoo faa jiitu. Uh-huh. bu dee lu neex. wala muy lu naxar. te dégg ci borom xam-xam yi ñu ne. jibril daf daan dem ci yonente bi sallallahu alayhi ko wax mbir dëkkandoor. ba ndax mun naa doon na. dëkkandoor mun na koo doon. mun na koo doon. yi ñu ne boo taxawee. sa wàlli day joor. nga compter si ñeneen fukki kër. sa waayu càmmo ñuy naka noonu ñëpp say dëkkandoor say dëkkandoor lañ te dëkkandoor dafa am àqa lu mu ta bàyyi xel la sooy tukki am say dëkkandoor doo xelaat tus fekk ñuy dëkkandoor yu baax fekk ñuy dëkkandoor yu baax say njaboot moom nga leen a bàyyee sa kër moom nga leen a bàyyee soo demee fa nga tukki sa xel bu na daal dëkkandoor yu njëkk yi nag ne ma daan gisee dëkkandoor yu njëkk yi mun nañ laa yaral sa doom mm-hmm. mun ngeen a siqante teraanga dëgg ñu defal la mm-hmm. maanaam defal la ci sa ndeyjoor mm-hmm. te càmmoñ ba du ko yëg du ko yëg góor du ko yëg jigéen du ko yëg mooy am seen diggante su ko ñetteel ba yëg xëy na yàggee na wax ko sutura sutura dëkkandoor dafa war a am sutura dafa war a am sutura si mbokki dëkkandooram am teraanga ci moom am teggin ci moom même office yi di ñuy liggéey sax. Mm-hmm. ña ngaa liggéey sa dëkkandoor sa lañ. ndax yéenay xëy di su gisee yéenay xëy di gisee. Mm-hmm. diggante juróom-ñetti wax ci suuf suba. Mm-hmm. ba juróom-benn wala juróomi waxtu si nga wax. dëgg la ngeen di war a suturaawante. sàmmante. xelalante. yéen ñëpp ngeen nekka beet. seen toogaay mun na neex mun na aj aji a Jóob wax na ko ak li aji wax li alaaji Tijaan Jóob wax nga xam ne tey bañ demee ci kër ga ñu ngi fa fekk jàkka joo xam ne ñu koy defar jàkka ju rafet macha allah te ñu ne ña la defar ñu ne dëkkandoor kon xam nga ne dëkkandoor yu am nañu jàmm ak ñoom ndax bu ñu amutoon jàmm ak ñoom duñ fa defar jàkka ndax duñu mën a julli si ci biir jàkka ji waaye am ak ñoom jàmm moo tax dëkkandoor yi dajale def jàkka ci biir kër imaam Ablaye Diop jàkka joo xam ne tubaarkalla macha allah mucc na ayib rafet na rafet goo xam ne macha allah ñu fas yéene dajaloo di fa julli loolu yëpp ci jàmm la bokk jàmm daal mooy jàmm dégg ngeen li nga xam ne moom la ñu wax ci sutura si nga xam ne moom la dëkkandoor war a amak ak morom ma mooy li ma doon wax léegi sutura si nañu am sutura te nag dinaa wax ne dëkk ci koñ ñëpp ragal la du ndam du ndam de mus na doon ndam te du doon ndam nag ba ilaa yow mi diin dëkk ci koñ ñëpp ragal la dama wax ne du ndam nit dafa am luñ koy ragalee am luñ koy ñemeñee waaye toog ba ñëpp ragal la koo wax nag mu ne un mm, mm, yaa koy tudd loolu du ndam benn yoon musta nekk ndam te ndaxam li ma wax rek mënuloo door nit ñi mënuloo wax nit ñi luñ la mënta wax waaye nag nit ñi dañu jombale seen bopp xuloo dañu jombale seen bopp xeex dañu jombale seen bopp wax ju sew yow nag su fekkee ne jombalewuloo ko sa bopp nga defee ne ñëpp dañ la ragal te fekk déedéet du loolu li may wax ne xeex dafa metti moom daal boo daanee dina metti waaye buñ la daanee yit mu metti ci ñaari boor yëpp lay méttee yal nañ ci yàlla musal waaye xuloo yit dafa metti ndax loo wax nit ki mu wax la li ci des boo duggee sa biir kër sa xol dina gunni gunni yal nañ ci yàlla musal moom daal yal nañuy am jàmm rek te bañ a xuloo bañ a xeex bañ a werante bañ a téesante nañ leen bàyyi xel ci ne xuloo amul njëriñ te tubaarkàlla macha allah léegi déegi gaaw na nga xëy suba làng ak sa dëkkandoor suba ba ngeen ngeen di xuloo suba ba ngoon ngeen di xasante balaa ngoon rek balaa timis rek nga dégg ne kenn ki dee na saan ñëpp seen xel dem ci yow mi nga xam ne yow la doon xulool ñu naan ndax am moo mooma fi làngoon ci suba ñoo fi doon defante ci suba lii la ko wax ci suba lii la ko wax ci ngoon te kat dee yàlla rek mooy rey naa la wax ne yàlla dong dong dong mooy rey kenn mënut a rey nit ku dut yàlla waaye nag boo deewee nag ca xuloo boobu ñu ne moo la rey fekk mënul laa rey